sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahu bi ihsaanin ila yowmi din bismillahi rahmaani rahim barki cheikhul xadim jërëjëf sëriñ tuba est-ce que sëriñ tuba boroom tuba moromantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp nuyoob lislaam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen nuyu nuyu jullit ak morom ma di leen nuyu nuyoo talibe morom ma ginnaaw loolu noo ngi jéggalu yàlla suñu borom di ko ñaan mu jéggal nu li dox suñu digg ak moom lépp ci ay rëcc rëcc wëlbatiku itam di sant yàlla suñu borom ci xéewal yim nu defal te xéewal yi xamunu nu mu toll euh, nu war ko cee sant waaye nun ñu sukk jébbalu ñëpp jébbal suñu bopp Serigne Touba àdduna ak alaxira noo ngi koy gën sante moom yàlla suñu borom ci boole gi nu boole ak sëriñ Touba ndax loolu dara melu ni ginnaaw loolu nuy ñaan yàlla ci xéewalam yépp te mënu ko dikk waaye di jiital ci ñaan gi ci lépp lu baax ñu jiital ci ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla may ko fan bu gudd ak wér taw féexal ko ba lépp li mu yéene ci toolub lislaam bi euh, mu eggale ko nu ànd kook moom te daje cee ngërëmul sëriñ bi nga xam ni bu gërëmee yonent bi gërëm na bu bi gërëmee yàlla gërëm na kon yàlla nañ ci daje ngërëmul sëriñ bi bokk yi nag tey war naa mat fukki fan juróom ginnaaw le 5 juillet ba léegi ci waxtaan wi nga xam moom lañ defoon mu mujj ci Saxum Touba l'officiel muy seen waxtaan wi ñuy séq ak yéen saa su nekk te jublu ci rek xidmatan lil xadiim xidmatan lil xadiim fi xaqlil islaam liggéeyal Serigne tubaa ci toolub lislaam bi jëme ko ci jullit bu nangu bu ne ak nag jëme ko ci taalibe yépp muy laayante biir ak itam soññ suñu bopp soññi leen ñaax suñu bopp ñaax leen ba nu gën a ci sëriñ bi ginnaaw loolu tey nu dikk ci du nu génn ba tey wala du nu sori li nu tàmbali woon muy lu jëm ci dëkk bu tedd bii ak diggante sunu digganteek sëriñ bi ak farlu gu nu war a farlu noonu ñëpp gën a góorgóorluwaat bala maa sori nag dinañ sant bokk yi nga xam ni gis nañ ñi ñu ngi gën a dëgmal di gën a xam waxtaan wi fi ñu koy fekk muy ci Saxum Touba l'officiel ci YouTube bi ak ñi nga xam ne noonu lañ ci abonné woo ak itam ni nga xam ne noonu lañ koy toppee ak ni nga xam ne noonu lañ koy séddalee di ko yaatal ba lépp kenn lu ci njariñ rek képp ku ne mën cee jot incha allahu rabbi am na ay laaj yoo xam ne dinañ ko ci tontu. ci ginnaaw wala ci njeexatalu waxtaan wi waaye li ñu jëkkatee daal mooy tàmbali waxtaan wi mooy bokki lislaam ahlul islaam ixwaanil muslimin yéen sama bokki jurit yi ixwaani talaamid ñu nga xam ne noo jëbbal suñu bopp jaayanteeg Sëriñ Tuubaa àdduna ak àlaxira ayyuhal awliya yéen ñi nga xam ni yéenay way jur ñuy wax parent d'élèves wala yéen ñi nga xam ne ñooy parents yi ngeen jéggal ma al awliya ñi nga xam ne ñooy parent yi di way jur muy ndey di bàyyi ayyuha sénégaliyun bokki sénégalais yépp bàyyiwuma kenn yéen ñi nga xam ni képp koo xam ni bëgg nam réewam wala mu bëgg dëgg nanu xam ni noo ngi ci guddi yoo xam ni xaw naa lëndam lool noo ngi ci jamono yoo xam ni danger am na ci loolu nag mooy wax jii ma leen di wax nii dinañ ci leeral tuuti incha allahu rabbi réew mi situation bi critique na lool doy na waar lool xëy na nag bu ko nit déggee dana ne ane nu mu doy waar waaye bu ñu ko xoolee suñ digganteeg suñ borom suñ digganteeg suñ diine suñ diggante ak suñu doxalinu àdduna ak ñi yor àdduna ñëpp képp koo xam nit ku honnête nga ku sérieux nga koo xam ne jëmm yàlla ak sa bàmm rek a tax nga wax xam nga ni diiniyan wa yenn wa siyaasiyan mbir mi yéeme na lool mooy religieusement socialement politiquement yooyu yëpp am na ci waaye bi nga xam ne moom la ñuy sàlloo saa su nekk muy ijtimaiyan ci lu jëm ci wàllu sociale ak diine ndénkaane la ak i baaxe rek ku mu neex da ngay jël ku mu neexul nga teg fee waaye li ñuy def dañ ko fay fekk rek fekk ay kilifa ay kilifa yu mag naka jekk daan ko def te nag yonent bi indi ko wax ni ad diinu nasiha maanaam diine mooy laaye biir sa mbokkum julit rawatina mbokkum taalibe wëlbati di ko wax ni man raa minkum munkaran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax képp koo xam ne gis na loo xam ni dafa tegiwul ci yoon loo xam ni dañ koy bañ nee na na ko dindi na taxaw xeex ko ci yor ngànnaay xeex ko ci yeddi bu nee yedd bu nee loxoom ci loxoom loxo moom li muy def mooy xeexe loo xamante ni bii day day taxaw feex xeex ko mu deñ fasaase nee nag su fekkee ne gis na ne loola yembul nekkul wala wërti nekk loolu waruñu ko waruñu koo jëfandikoo nee na na ko xeex ci wax ko ak yee ci nit ñi ak ubbi seen bopp ak sori leen loolu ba ñu sori ko ngir mën caa mucc nee su fekkee loolu mënut am nag nee na na ci na ko naqarlu ci xolom rek na ko naqarlu ci xolom kon nag ñett yëpp ay jumtuwaay la yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg ngir ñu mën koo jëfandikoo ci lépp loo xam ni mi ngi am te am yonent bi nag lu jàngalee lu ne kenn kuy tee nit ñi jëfandikoo ko yàlla sàkk ko incha allahu rabbi ginnaaw loolu mu leen di wax ni bu ngeen gisee leen dal lépp te xëy na am na ñuy nangu am na ñuy bañ waaye li nu dal ñëpp waaye nag ginnaaw yàlla ci boppam moo am ñu ko nangul am ñu ko bañal am ñu nangul yonent bi am ñu ko bañal kon foofu du ma fa wax junjuree na borom xel waaye nag li am solo mooy yàlla lu muy def ay mbiram dafa sew lool dafa complex du lu neex a xam li mu bëgg foofu mooy euh, bu ngeen gisee li nu gàllankoor Sénégal dëgg dëgg dëgg ku nangoo ku bañ ne leen weer ni yeex gu nu yeex a jébbal sëriñ bi suñuy mbir doo nga ko waral. yéex gun yéex a jébbal suñu mbir Serigne Touba bu ma waxee loolu nag ak it lenn ci ñenn ñi ñàkk chance moo leen dal ak it ñàkk xam mag ña lu ma waxee loolu mën naa ci indi firnde mag ñi fi nekkoon ñaata yoon laa ko wax ni leen mat nañ ay juróomi téeméer ëpp nañ ko ñoom ñoo jëkk a ñëw jébbalu ci Serigne jox ko seen bopp ni ko jébbal na lu bopp noo ngi topp sa ginnaaw waaye mag ñoo ñuy dégg ñooy jëkk ànd Serigne Touba bu dee ci wàllu àdduna ci kër yu xam àdduna lañ bokkoon bu dee ci wàllu diine jamono jii li fekk àdduna di tuggati moom nit dootu dem ba tolloog ñoom xam-xam ndax ñoom yoruñu woon xam-xam jàng ci téere nii rek dañ cee boole woon di jaamu yàlla di ragal yàlla di sàmmoonteeg li yàlla bëgg ba nekk awliyaa ullaahi awliyaa ullaahi mooy lan waaye yàlla nitug yàlla nitug yàlla mooy dem di dëkkaale suñu borom ca lam bëgg ak lam bañ nga nga di ko sori ba suñu borom jege la lool ba nga ngi yàlla loolu mooy awliyaa ullaahi mooy wàllu wala yu mooy koo xamante ni day nekk ca la yàlla digle bàyyi lem tere dem dem ca ba egg ci étape boo xam ni léegi dañ koy mën a xool rek jiñ ko waaye yàlla ñooñee nag xam-xam bañ amoon laa di amatul fi ñu toll ci kaw adduna ku nu gis ngay jaamoo noonu yàlla amatul moom ku ñu gis ngay jaamoo na mag ñi daan jaamoo yàlla ragal yàlla ga nekkoon ca ñoom basiira ba nekkoon ca ñoom loolu yëpp nag ñu boole woon ko rek teewul ñu jël seen mbir nag jox ko cheikhul xadim jébbal ko ko kon bu fekkee nit day wax ci diine ak koo mën a doon ak foo ko mën a waxee ak foo ko mën a jànge ba ilaa yow mi diin nee la ba bufta bi wal mënoo dab mag ña ndax boo leen daboon ci ay téere sax cim njàng yër ay téere ay diplôme boo leen ci daboon sax doo leen jege mukk ci ragal yàlla doo leen jege mukk ci sàmmonteeg la yàlla digle nam ko nañ ko daan defee kenn du leen ci fekk loolu moo tax man leen suñuy mbir bu yeexee bu gàllankooree ñàkk mag ñooñee dañoo jébbaloon seen bopp Serigne Touba ndax loolu dogalub suñu boroom la dalla alayya al ulama wal awliya man laa yazaalu quwati bi xawliya man laa yazutu man laa yazaalu quwati wa xawliya maanaam sëriñ bi dafa wax ne mag ñooñee ko ñëwoon ànd ak moom ñu jëm ci yàlla nee na moom yàlla moo leen indiqué moo leen joxoñ sëñ Tuubaa dalla alayya al ulama man laa yazaalu quwati wa xawliya nee na ki nga xam ne sama carte nag lépp ci moom lay jóge sama lépp sama ndëgër laay ci moom lay jóge moom yàlla moo teg nal mag ña mooy tegtal waliyu yàlla yooyu al ulama wal awliya ndax foo xoolal ñaari baat yooyu ulama mooy boroom xam-xam awliya kon mooy mooy kan mooy borom xam-xam ba nga xam ni jëfe na xam-xamam ba dem ba egg ci diggam ak boromam dara dootu fi dox daanaka suñu borom daf koy murul lu bari ci kiiraay al ulama la wax al awliya kon aalim du waliyu laysa kullu aalimin waliyu maanaam du borom xam-xam bu ne rek waliyu nga déedéet. loolu leer na nañ al ulama wal awliya ulama mooy les érudits awliya mooy gars yi yàlla yi nit yàlla yi ma mooy bu ñu nee yàlla mooy ñii ma leen wax léegi kon nag nee yàlla moo leen tegtal ni leen sëñ Tuubaa mais dem leen ca moom te loolu ay firnde yu bari am na ci ñoo xam ne sëñ Tuubaa waxu ko ay nit yàlla ci boppam yoo xam ni ñeneen lañ fa bokk feneen ñoo ko waxal sëñ Tuubaa te bu ñu demee ba ci kanam ci jeexital gi danaa leen indil benn vidéo ndax bii lu bees laay bëgg a indi dinañ indi ay xeeti vidéo yoo xam ni benn bu ci nekk day topp ci waxtaan wi léegi ngeen di ko mën a xol man maa koy tànn di ko indi di ko teg ci biir ngir nu mën ko dëgërloo te lii ma wax di ngeen ci gis firnde ci koo xam ne naar bu xonq cur la te wér neen bu ngeen ko xoolee xam ne dañ nag réer te la muy wax yàlla tax mu di ko wax bu ndewee ba ca njeexital li di ngeen ko gis incha allah bu loolu jàllee léegi nag moo wax ni kon mag ñooñee nun bu suñu mbir yeexee wala nu nekk ci gàllankoor danoo deful ni mag ñi defoon dem toppi sëriñ bi te xam ni mbir mi noppi na ba noppi ba ci topp mooy Serigne Touba dafa eggoon ci martabab ragal yàlla boo xam ni moom euh, badalin min xaw fii xaafa allah wa kafaahu alxaalix charra almaxluuq au lieu kon muy ragal mbindeef walla muy xool mbindeef ci lenn ba tax du def la yàlla bëgg léegi moom dafa ragal yàlla di jëf la yàlla bëgg ba yàlla wëlbatiku def ak ragal wala war ma gu oo xam ne day xaw ak nuuru ragal bu def ko ci xoli nit ñi jëmee ci moom suñ tubaab dafa demoon ak yàlla ba nga xam ni daa jël xoli nit ñi ñu warmaal ko warmaal goo xam ne day dem ba egg ci nuuru ragal moom ragal suñ tubaab ndax yàlla la ñuy ragal waaye sëñ bi dañ ko warmaaloon ba nga xam ne war ma day dem ba xaw a nuuru ak ragal loolu nag yàllaa ko defal suñ tubaab ci kaw ragal gu mu ragaloon yàlla suñ borom moo tax ma ne badalan min xawfihi almaxluuq xaafa allah wa kafaahu alxaalix charral maxluuq moo tax yàlla fegal ko ay li ñu bind dafa ragal ki bind ki bind au lieu kon mooy ragal ki ñu bind mu ragal ki bind ba ki ki bind nag ci ragal googu mu ragal mu wëlbatiku nag fegal ko ayu ki ñu bind loolu la sëñ def mooy lan walastu arju wala axsha siwa maliki li annahu jalla yuxni nii wa jii nii du ragal kenn ku dul sama borom du ma yaakaar kenn ku dul sama borom ba léegi nag yàlla ci biir loole mu egg ci moom ci niveau boo xam ni ci la ko yàlla toftalee yi mu ko toftal yépp nag ba mu xaw laa jaaxal yow sa bopp kon loolu nañ ci bàyyi xel beneen bi topp mooy ci nun ñëpp ay juum dañu juum nun ñëpp kullu naa xataun nun ñëpp dañu juum laa yaasuna allaha ma amarahum yàlla kenn rek la ko wax malaayka yi malaayka yi rek la wax ne duñ mooy yàlla ñoom buñ ko bëggoon sax duñ mooy duñ mooy yàlla malaaka yi bëgguñu ko mais bu ñu ko bëggoon sax duñ mooy yàlla laa yaasuuna allaha maa amarahum alquran la nit nag mën naa juum mën naa mooy dëgg la waaye nag mooy gi ak dinci suñ borom da ko wuutale ak bàyyi ma daa wuutale nit ak bàyyi ma xar ak xam nga ñooñ mën nañu def di ba ilaa yumi di ñu nekk ci erreur waaye nag nit kii juum ak di mooy nag du war a dem nag ba egg ci nag daraje nag di xotti war may Tuubaa Mbàkke wala xotti war may lislaam maanaam mooy nit akuk juumam nag wurte egg nag ci ndax nun ñëpp am na nuy xel xam nañ li jaadu xam nañ li jaaduwul xam nañ li jaadu xam nañ li jaaduwul nun ñëpp am na nuy xel kon dama ni nit ku dul juum amul waaye nag dem ba egg ci nag dëkk ci di xotti war may suñ borom ji ni ma ko waxee war may dëkk bii ak lépp lu laal lislaam bu boobaa nag loola moom ci la hadisu bi yonent bi di dellu si daal ci kawam am na ku ma fi doon ci jamono yee ci bii weesu muy njànku njaay am na muy tuddee boppam ak ñi nga xam ne xëy na ku mel ni moom ku ne waaye moom mañ ci gis déedéet ku dul moom ëpp ko maqaama di wéy sax du nu am ak moom conflit conflit personnel du nu séq ñun ñaar lu ñu kii ndax koo xam ne doo ko gis du la gis séqu leen intérêt perso eh, intérêt adduna amu leen lenn lu ngeen di war séq ba tax nga naan ko dama koy ñaan wala ba di ko fa amul waxuma moom waaye ka ngeen gën a yaakaar mu am martaba ci Sénégal la wax dépassé nañ la Cheikh Abdoul Ahad waxoon mu barkeelu ci nee na su ma waxee ci kaw su ma waxul ñu ne daa mer su ma waxee ci kaw ñun day xuloo te nee na xuloog mer moom li koy tax li koy waral dara duma ko ci def ndax nee na xuloo li koy waral mooy xëccoo njëriñu àdduna rek mooy tax xuloo te gis naa ci yàlla ko def kenn xëccoo njëriñu àdduna mer nag li koy def waral mooy gis lu neexul yàlla rek moo koy waral mooy tax muy mer kon lii dama fee bëgg a barkeelu ci wax jooju wan leen leen li muy wax lépp bu ngeen seetloo ñeent fukki at yi bañ ko tàmbalee ba léegi ndax mat na ko amul benn nit boo xam ne mën na jàpp ni danoo am conflit personnel lu nu seq suñu diggante nga tax nga déedéet saa yu nu waxee li tax mooy jëmmi lislaam ji ak jëmmi intérêt général lu islam intérêt général yoonu murit waaye doo dégg mukk loo xam ni sunu bopp rek mooy tax loola nu cay yëkkati suñu kaddu bañ nañ ko ba benn bis bi ma waaye benn waaye waxee ni ma diw sàngam fekk ma ko doon faj ci lu mu doon def ñu faj ko ba ba mu wér nag waaw mu am nu muy waxee nu bare bare nu doy waar benn waaye wax ma ko di ko naqarlu ma ni ko kenn du ma distraire dama xam sama objectif xam sama but mooy su ma nekkee ci dara di ko dox bëgg mu sotti wala bëgg koo faj loolu rek laay lijjanti li ci mbedd mi nag ci côté bi ci sama wet noonu di ma cokkaas duma ma ko lijjanti ndax bu boobaa day mel ni man man maa yëg sama bopp ba léegi la ma taxoon a jóg mooy kon sama bopp ma taxoon a jóg mais déedéet la may lijjanti rek mooy lu mel ni film Carmen ba ba ma koy taxaw ci foire bi nii du fi daw booba li li am lépp su ma wëlbatikoon rek dañu naan ah kii kat kon ndeket nag waaye dema ni kenn mënul woon a tee man la ma faj ma faj ko kon loolu misaal rek ci waxtaan waaye li tax ma di ko indi mooy ci biir waxtaan wee ko indi moo ko indi mooy lan mooy intérêt général rek mooy tax ñu agir intérêt bu l'islam intérêt taalibe yi intérêt bi yoonu murid waaye du doon loo xam ne intérêt personnel la bi ma tuddee kooku nga xam ni duma ci waxaat dinaa ci dikk ci kanam incha allahu rabbi muy ki ma doon artu di ko tëkku wala mu ki ma doon artu ci biir Touba ak doxinam am na ci loo xam ne dégg naa soppiku na waaye li ma bëgg a wax loola ca mujj laa ko wax incha allah rabbi li ma bëgg a wax daal mooy nu dellu si ci yi sëñ bi doon tere bu ma nee yi sëñ bi doon tere mooy yi yàllay tere dañoo tàmm sëñ bi ay intérêt déedéet sëñ bi terewul loo xam ne moom dafa toog de son propre gré mu ne damay tere lii déedéet loolu luñ ci tere lu ne boo demee ca lislaam boo demee ci fiq fekk ko ci ñun de lii lislaam nangu ko moom nag mu nekk koo xam ni daa war di taxaw temm ci di fàttali loola ba noppi nag yor ngannaay loo xam ne moo koy aar moo mooy mooy wattu loola du rek fas ci ay loxo déedéet na ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxe woon kon loolu ak fàttali la goo xam ni li muy fàttali lu yàlla wax la lu yonent bi wax la lu islaam wax la ba noppi nag taxaw ci ndax ki ci war a taxaw mooy kon boo jiitu kon moo ci war a jiitu moo ci war a taxaw tere yooyu nag laa wax ne am na lu ma doon lim ba am lu ma ci fàtte bi ko sëñ Muntaxa di fàttaliwaat mooy dafa waxoon ni nu bàyyi xel ci fu waxtu julli yu jotati kenn ku ci nekk loo jàppoon nga bàyyi ko dem jàpp ba set dem julli ji loolu bokk na ci bi muy wax waaye jiitu am na lu jiitu julli gi nee na fépp foo xam ne ak nodd jógati na ci Touba waaye bu nee tuubaa dangeen di jàpp ni fu dul Touba sax ci la bokk ci képp ku bëgg bëggul baax maa ngi fàttaliku genn kilifa gu mag ci yoonu murit goo xam ni ba kenn waxagul tuubaa dëkk sàngam moom moo daan wax tuubaa Italie Touba Ndakaaru Touba Kaolack Touba Nangam. Touba tabbi Touba dë kilifa googee Touba nang moo ko jëkk wax ci Sénégal Cheikh Sidil Muxtaar mii fi jóge yal na yàlla yokk leeram wax na nit ni ko ci làmmiñu kooku laa jëkk a dégge Touba dëkk sàngam ci kilifa googu ma leen di wax kon bu ma nee Touba gii li sëñ Mountakha wax Touba la concerné waaye foo waaye mën a nekk te aju ci Touba wala nga dib jullit te bëgg lu baax loolu yitteel na la tere yooyu nag daf caa wax ne bu ñuy noddati fu ñu yëkkatee nodd gi képp ku ko dégg bu doon looy def na toog diglu ba nodd gi jàll nga ne ashhadu an laa ilaaha illallaah muhammadur la topp ci ñaan ci nodd boo ko mënee nga wax ko boo ko mënul nga wax loolu ba noppi ñaan sa soxla waaye nodd ñuy wax loolu la sëriñ bi ni fu mu nekkati bu dee ñuy yëngu ñuy wax waxul sax ku waaye wax sax bu ñuy noddati na nga ko bàyyi léegi nag dafa am loo xam dañ ko wax war a xam suñu diine mooy li ñu digle ak li ñu tere li ñu digle ak li tere maanaam ginnaaw lu mel ni tey jii li sëñ bi doon tere buñ nee mèche xam nga waxaaliñ du waxuma Touba waaye jumaa ji moom waxaalituñ ko waaye Touba gépp lañ wax nga xam ni kon ak foo mën a nekk rek da xam ni ca la bokk nodd googu itam sëriñ bi ne ku ko déggati na nga déglu ba nodd gi daanu nga soog a yëkkati sa kàddu danaa ci indi benn wax lu ñu wax ni jóge na ci sëriñ bi ku tedd ki mu Cheikhul Khadim ñu mos ni mas naa wax bis ni ñu nodd ba noppi am ñu nekkoon fi wetam am ñu ci doon wax de sëriñ bi sax kenn ñi warul nekk ci wetam di wax waaye xam naa ñooñu doon nañ wax rek la ñuy wax xaw naa yëkkati ko tuuti ba seen dégg seen nit ñi sëñ bi dégg seen baat te booba ñu ngi nodd mu ñu nodd ba noppi mu leen xanaa xamul leen ni nodd ñuy nodd ngay wax day yàggal sukuraat sukuraat nag looy yaakaar moo ko gën a metti moom daa metti wala iyaasu billaah sukuraat mooy fi ngay dem bay bëgg a faatu dafa metti lool sëriñ Tuubaa ni leen xanaa xamoo bu ñu yëkkatee nodd bu ñu dee nodd képp koy wax boo eggee ci sukuraat day yàgg da koy yàggal te sukuraat moom bu munta ñàkkit gaaw moo ci gën waaye sukuraatu une semaine wala sukuraatu 48 heures rek wala ñaari waxtu rek wala yaasu billah mun leen nekk nodd buñ ko dee def kiy wax nga xam ne day wax bu ñu nodd day yàggal sukuraatam mag ña nekkoon fa moom nee nañ ni ko ah mbàkki mënoonu ko woon wax kon nu bañ a wax nu noppi mu ne leen su ma leen ko waxoon ci biir nodd gi kon damay wax mu ne leen su ma leen ko waxoon damay wax maanaam su ci biir nodd gi su ma leen waxoon lii ma leen wax kon man damay wax ci biir nodd gi noonu la Sëñ Tuubaa doon jàngale kon lii ku ko déggati benn rek lii rek doyoon na tey ku ko déggati saa yoo déggati ak nodd loo xam ne matul 3 minutes nga taxaw déglu fi ñuy ñuy sàbbaal yàlla suñu borom di seere ni Muhammad moo ko yónni ay baat yoo xam ni ca aras lay egg nga mën ni teg bu noppee nga ñaan si soxla dem waajal sam njàpp dem julli ji kon loolu bokk na ci li nga xam ne sëriñ bi wax na ko am na nag lu ma indi woon loo xam ne waajaloon naa ko euh, da fa ma fa ma ko denc dafa sori waaye incha allahu maa ngi leen koy dikk ci ajuma bii nu jëm incha allahu rabbi wala boog ci Saxum Touba l'officiel bii nu jëm mooy dama doon am lu ma bindoon ci en mille atum 2000 laa ko bind juin 2000 bu may indee dinaa leen ko ngeen gis ko ngeen xam ni ab journal la muy Touba magazine cinquième numéro ma bindoon ca loo xam ni dama caa bindoon ca éditorial ba ana lu war ku dëkk Touba 2000 laa ko bindoon ana lu war ku dëkk Touba mënumaa indiwaat lépp ndax mokkaluma ko fi mu toll nii du ko mokkalaat waaye ma indi ci benn bu dëppoo ak lii may wax mooy sëriñ bi dafa wax ci julli ma ni nag sëriñ Tuubaa wax na ni mu ngi ñaan ci mat Matlabul Fawzayni di ñaan yàlla su borom jamaa atan tuqim dafay ñaan ci biir mat Matlabul Fawzayni yàlla maa ngi lay ñaan am mbooloo mu dëkk tubaa muy julli ji mbooloo jamaa jamaa ci mooy mooy mbooloo. bu dee kenn nit mooy fard benn fard jamaa nag mooy mbooloo mu ni Sëriñ Tuubaa ni mu déggee arab ni mu ko maîtriser néewul afraadan tuqim ay benn benn yuy julli ji waaye jamaa atan tuqim la ma ca jànge man ca bayitoo mooy kon Sëriñ Tuubaa ndekete daa bëgg bu nit ñi buñ noddatee nit ñi dem julli ji julli jamaa maanaam bañ a toog foog a toog rek tallal sab si jaade loolu bi ma koy leeral ci biir journal bi nee naa leen képp jamono yi képp ku ne ku mu a doon moo xam ci marché nga nekk foo man nekk wér na la ni buñ noddee jàkka ji soreewula sore goo xam ni mat na sax genn wàllu kilomètre mën ngaa jël sa tànk jàpp ba set dem ci jàkka ji kon sëñ Tuubaa lii la bëggoon mooy jamaa atan tuqim mbooloo muy taxawal julli waaye mono bu ko neexoon mu ne afraadan tuqim waaye jamaa atan tuqim la wax loolu nag li koy firndeel léegi daanaka Tuubaa li fi nekk ci ay jàkka dinañ ci dikk beneen yoon ëpp na ñeenti téeméer xëy na wala ñetti téeméer kon ku fi fooy dëkk rek kon jumaa soriwu wula wala jàkk soriwu la joo xam ne mën ngaa julli ji julli mbooloo loolu mu ngi ci matlabul foo sey ni jamaatun tuxim dinañ ci dellu si ak yeneen yama ca tegtaloon ci képp koo xam ne dëkk nga Tuubaa li la war loolu maa doon toog di di ko bind 2000 laa ko bindoo te incha allah rek dinañ ci dellu si beneen bi topp mooy euh, li sëriñ bi tere am na loo xam dama ko ciy waxaat leer ko ci ñu bàyyi woon ko ci fàtte ko ci mooy lu mel ni lii gone yi sol ñu ko wax jean déchiré même bu dul jean de chair sax xoolal rek maanaam nga nga wëlbatiku euh, sol yére yoo xam ne kenn xamul lu muy nuru waaye sol yére yoo xam ne oom yi ak pooj yeeg yëpp dañ koo xotti te nga teew nga nit nga boo ko mënta bañ a defit bokk na ci yi ñuy tere ci Touba maanaam jean déchiré boobu kon amoo droit yow moo xam da ngay dawal oto moo xam apprenti nga moo xam ouvrier nga moo xam loo mën a doon booy sol nga sol loo xam ne day muur saw yaram loolu na ko ñëpp bàyyoon ndax da leen di wér ni jean déchiré yi am na ci yoo xam ne fii lay xotti te loolu bokk na ci awra góor waaye bu dul woon loolu sax dafa bokk ci intérêt bokk na ci loo xam ne leeralal luñ ko itam mooy salon de coiffure yi nga xam ne ñu ngi koy ubbi léegi ay étranger ñëw ci biir dëkk bi di jàngal xale yi xeetu wotin woo xam ne moom la ñu wotoo loolu it xam ngeen dañ koy tere kon loolu ñi da bu ñu waxtaan bu ñu waxtaanee ba noppi dañ ko war kër gu mu nekk wala ku leen luy wala ku mën a doon ak fu nekk dañ leen war a dégri pire salon de coiffure yi watu moom ku ne xam na Touba naka jekk waaye nag bu fekkee ne bii léegi dafa am xeetu watit boo xam ne mooy nanga nga ne bi ñeneen ña na la ñuy woto te loolu kenn xamu ko loolu mooy salon de coiffure te yëmul ci loolu rek mën nañ faa def leneen lu bokkutoo sax woto rek loolu it bokk na ci li ma ko wax nag mooy bu kenn ni lii la ñuy tere terewuñ lii li ñuy tere maanaam képp kuy nit sa bopp di jëm kaw say tànk di jëm suuf boo déggee li ñuy tere wala loo xam ne jaaduwul kenn warlu ko wax xam xam nga ko sa bopp kon du am di ci génn lii ak di ci lii lépp loo xam ne lislaam xëy na nanguwu ko te dëppoowul la dëkk bi loola daa bokk tere yi daa bokk tere yi waaye yi ca gën a tar rek la sëñ bi génne yi ca gën a tar la sëñ bi génne dëkk bi dafa am nu mu bindoo am aada léegi nag ma ñëw ci loo xam ni bu ñu demee ba RFI Juan Gomez def na ci benn wax def na ci benn benn reportage ci tere sëriñ bii Juan Gomez RFI dama dul man saa yu nekk ma dugal lépp ci sàq bi mais kon du ñàkk sax ma indi son bi tegal leen ko moom bi mu koy waxaat du yàggu rek bërki démb RFI di ci di wax li sëñ bi tere yi mu tere nga xam ni kon adduna bépp dégg nañ ko waaye li mu bëgg a wax foofu mooy méfe yi maanaam jeexital yi li sëñ bi doon tere ndax loolu diine rek la ndax bon bon yi li sëñ bi doon tere bon bon yi ndax ci diine rek la déedéet am na ay bon bon yoo xam ni mën nga koo jàppee diine yen ay méfie ay effet yoo xam ni effet religieux effet sanitaire effet économique maanaam dafa am lu muy wàññi loo xam ne bokkutug diine ginnaaw bi la ko yàlla teree ba noppi te yàlla xam ne lim lay tere dara baaxu ci muy la ma leen wax naa ci jël ay exemple lu mel ni mèche wala ongle ay we nga yokk wala ay xef loolu dafa am ay jeexital yu bokkutug diine mooy lan dafa am lu muy def ci nit lu bokkut diine ji la koy tere lii moom dafa am lu mu la ci wàññi mooy lan mooy wér-gi-yaram mèche bi nga jënd même cheveux naturel ak super foo ko mën a jëlee cheveux yooyu ci ban bopp la jóge ndax ci boppam yéefar bu gëmul yàlla la jóge wala ci boppam jullit cheveux yooyu médecins yi xam nañ bu baax ñoom man du ma médecin mais bu leen yaakaar ne kawar taw feebar mënu cee jóge kenn mënu cee wàll nit ak ñu ko traité traité traité que mu jóge ci boppam ndax xam ngeen ne am na tawat joo xam ne yow boo ko tegee ci sa bopp même bu eggul sa kawar mën na laa gàllankoor produit chimique yañ koy traité ndax ñoom produit yooyu bu laalee soo yaram dermatologiquement ndax mën na mun laa jural musiba ku li fi dalee nga xam ne kenn du xam lu mu doon léegi bu loolu kon léegi effet am na sanitaire ay jeexital yu wér-gu-yaram yoo xam mën na laa indi gàllankoor ci mèche beneen ba ci des ci mèche bala maa sori mooy israaf gi inna allaha laa yuhibbul musrifin loolu moom alxuraan direct la moom du sunna sax alxuraan inna allaha laa yuhibbul musrifin yàlla bëggul ko yàq ngay war a jël ay cheveux jënd ko mille francs te doo yàgg ak moom wala boo amee moom un dindi war ko jëndaat ko ñi nga xam nag ñoom amuñu njëg googu ñoom bi ñuy jënd 6000 wala 7000 danañ ci jënd fukki yoon ci at mi kon loolu yàq la gu wér a wér goo xamante ne bi wér na li yàgg yàq te man waxuma de yàlla wax ni inna allaha la yuhibbul musrifin man yàlla ko yàq kon économiquement yaa ngi yàq loo xam ne boo ko économiser woon askan wi nga bokk sa wetu ndey wala sa wetu baay am na ci ñoo xam ni loola mën na laa dugal àjjana mën nga leen faa fekk xeet la def la ngay teg sa bopp ci suba waxuñu la ne bu waroo defaru de jigéen du wax loolu waaye dama ni la ngay def loola laal wax ndax diine ji ko tere moo tax ma ci indi ay détails beneen bi topp mooy iqtisaadiyan wax naa ko économiquement xool leen les industries lobby yu mag yi nga xam ni ñooy defar mèche di defar ay we di defar ay xef ñoom fi ñu amatuñ jàmm waa Tuubaa lañ gën a jéppi ndax seen chiffre affaire day daanu ku ne xam na mbooloo mi dëkk Tuubaa ak it ñi dëkkul Tuubaa te dëggal sëñ Tuubaa rus sëñ Tuubaa te dëggal ko nar a bàyyi lii ndax gis ngeen ne am na ay vidéo yu circulé yoo xam ne ay jigéen am na ñuy lakk seeni i mèche am na ñoo xam ne ñoom ne nañ jaayante nañ bis ni ki tey ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa dootuñu ko def loolu boo ko xoolee ci Sénégal nañ xool la douane wala ñi nga xam ne ñooy contrôle ñu xool ñaata la Sénégal économiser ci loolu ci wey yi nga xam ne taalibe yi bàyyi nañ ko ak xef yi ak mèche yi sur le plan économique moom kon ci wàllu koom-koom am na loo xam ni loolee nga doon def bu fekkoon yaa ngi koy yaxanal ba màggalul Touba nga dugal ko ci màggalul Touba léegi sëñ bi mën na laa mën na laa sa karaw bopp sax wala mu sëqalal la ko naturellement waxin la rek dama ni la nga daan def loolu boo bàyyi woon loolu mais xaalis ba nga ko daan jënd te it daawoo ak nu mu mën a demee daan ko ko am nam la ko jarale woon rek màggaluk Touba jarale la ko noonu nga di ko dajale ba màggaluk Touba nga def ko ci muy sant yàlla nga xool suñ borom nu muy fayee nga xam ni yàlla moo mën a fay rek kon li bëgg wax mooy ginnaaw bi la ko yàlla teree te xam li tax mu tere la ko te jaaduwul muy watu diine ji wetu économie gi baaxul ndax yaa ngi yàq xaalis wetu wér-gi-yaram gi wey soo ko ci poosee wér na la ni produit chimique yi ñu ko defee mën naa dugg ci saw yaram indi la jàngoro beneen bi des mooy bi ci gën a garaaw nag mooy xef yi xef yi ngay def sa bët boo ko defee ci sa bët buñ ko ci def ak buñ koy dindi wér na la ni lii produit chimique la tey it mën na la booboo gën a bonati moom mën ngaa gumba bu la dalu léegi mën ngaa dem ba jëmmi jamono mu fekk la fa nga naan ah lii di wàññi dara traité nañ ko amul benn amul benn effet secondaire loolu nag nee la bu yooyu yëpp jàllee nag xoolal diine ji la ko tere moom yii ay jeexital la yoo xam ni dama koo jàngat te li muy taar bi mu lay jox c'est artificiel c'est artificiel soxna su wóolu boppam dëgg dëgg dëgg day set wecc loolu tee dem léttu ji wut shampoing di raxas sa bopp di léttu ji di musóoru bu fekkee ne doy loo sa bopp waaye loo xam ne boo demee sa borom kër wala ku mën a doon bis boo ko teggee bukki ngay nural loolu amul një amul sens c'est artificiel lu naturel li nu mu mën a toll moo gën waaye nag lu loo xam ne art benn prix am na am na am na loo xamante ne bii nee la jàngoro yi mu la mën a jural xamul lu mu doon te yow yow mi koy def maanaam am nga complexe ndax ah, complexe nga sa sa physiquement complexe nga ci sa bopp maanaam yow danga am complexe sa bopp yow physiquement ni la yàlla bindee. complexe boobu moo tax nga jël mees di ko teg jël wee di ko dugal jël lan jël xef di ko teg boo complexe wul woon sa bopp doo def loolu moo tax léeg-léeg di nga ko seetlu jàngkati jigéen jigéen ñi jàng tubaab dëgg ñenn ñi ci banque yi ñenn ñi ci na ñoo xam boo leen xoolee yooyu yëpp duñ ko jege xalaatuñ ko sax ñenn ñi dañuy fuddanu ñenn ñi la mais doo leen gis lépp intellectuel yu bëree bëri bëri yooyu duñ ko sax kafe duy xef du wedd du mees waaw maanaam ñi nga xam ne yoo complexe seen bopp lu ci ëpp ñu def loolu bu loolu jàllee nag ñu ñëw ci li nga xam ne mooy barab yi nga xam ne ñoo koy jaay waxoon nañ ko keroog ñi ngi sant chef de quartier yi ak yenn kilifa yi nga xam ñi ngi def déclaration ngir ñoom di woo seenu njaboot di feddali li sëñ bi wax te loolu ñu ngi koy dégg ay benn benn yu koy def li ma bëgg a wax foofu mooy muy ndakaaru muy fu mën a doon nga ni taalibe sëñ Tuubaa la jël turu sëñ Tuubaa tudde ko sa place di fa jaay lenn loo xam ne dëppawul di jaxase turu sëriñ bi ak loola wallaahi laasim di ko layoog sëriñ bu ëllëgee kenn mun laa teel layoog sëñ ndax Sëñ Tuubaa daal laalul foofu lenn bu la neexee nga wut beneen tur tuddee ko ko waaye jël tur nangam Xaadim Rasul wala nangam Sëñ Tuubaa wala nangam Sëñ Fallu nangam Sëñ Saaliw te mu wér la ni li nekk fii lépp ñooñu ñimewoo taxaw fi ñoom ñu taxaw yow ñëw fekk la fa ñaana la ñimewoo ko muy ci produit yoo fay jaay produit de beauté wala lu mën a doon kon li jaadu mooy li nga xam ne mooy laaye biir mooy kenn ku ne tur wa nga tudde sëriñ bi fexeel ba defa jaay loo xamante ni bi lu dëppoog sëriñ bi la soo ko mënul nga wut weneen tur bu boobaa noonu mën na caa duñ toppatoo woon ko sax dana la baax rek laa la biir en tant que jullit ak morom waaye nag jël turu sëñ Tuubaa yi di ko tuddee ay place yoo xam ni ba noppi di ci jaay loo xam ni loolu ku ko def yaa ngi war sëñ Tuubaa te boo nee bëgg nga sëñ Tuubaa waxoo dëgg war maa ko itam respecté woo sëñ Tuubaa ak ku mën a doon nag laa wax ku mën a doon ku mën a doon rek war baloo war maa loo sëñ Tuubaa woo ko bëggoo ko itam boo ko bëggoon yooyu da nga ko génne foofu wala boog nga tuddee ko neneen su suturaal ko sax bokk rus ko bokk rus ko bokk tudde ko neen te de de continuer jaay li jaay loolu beneen mbir kon sëñ bi dafa am nu ñu koy wormaale ak nu ñu koy respecté alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan sakartuhu liannu xad saxani liwatani bi nafa ma fani